ay Touré di souligner cas torture mais boobu dama bëgg ñu ñëwaat ci comme puisque yow tamit tu étais là-bas. Mm-hmm. Euh, qu'est-ce qui s'est ci manifestation bi samedi bi passé. Mhm. manifestation bi li fa am euh, euh, maaxat euh, yi yaakaar mhm. naa ne ñi nga xam ne ñoom ñoo di presse local bi wala sax presse sénégalaise bi daal dinañ mhm. koy relayer bu baax a baax ndax jour boobu sites yi nga xam ne ñoom ñoo nga ñu ngi fa woon ñëpp ñoom ils étaient témoins de ce que li fa xewoon donc mu nekk nag manifestation boo xam ne nee na manifestation conjointe la woon am na ci ñu bari ci ay kuréel wala sax ci ay fonds yoo xam ne ñoom ñoo boole boole woon seen doole bokk na ci FDD bi nga xam ne man moom laa bokk ñun ñoo boole woon suñu doole mais ñun waa FDD ñun ñoo defoon demande ci commissariat bu bu bu Grand Yoff ñu ñoo ñu daal ñuy autoriser euh, moom mi nga xam ne moom mooy kilifaay euh, dëkk bi euh, di préfet daal ñuy autoriser autorisation bi ñu waxoon ñu de trois à trois heures à dix huit heures la ci kaw loolu aussi ñun respecté nañu sax ba mu ëpp li ñu waxoon parce que à seize heures moins fekk na presque orateur koy yëg parce que pour bañ a jéggi li ñu li ñu jox ci yoon mm-hmm. euh, taxoon ñu daal di teel a commencé li nga xam ne ni moom mooy waxtaan wi nit ñu commencé gis nga mën naa ne la euh, ay 17 heures presque 30 mm-hmm. fekkoon na ñun suñu ay orateur daanaka jeex mm-hmm. parce que ñii di leader yi ñi ñu waroon a jox ñu ñu dressé woon ci liste yëpp ñi ñu waroon jox parole presque jeexoon na euh, ma jut ma jot benn coup de bu may woo comme quoi am na ñoo xam ne dañoo rax manifestation bi parce que man la ñu man man la ñu bàyyi woon ak côté organisation bi côté boobu euh, donc euh, man maa doon jokkoo ak ki nga xam ne mooy kilifa bu police bi man maa doon jokkoo ak moom tout le temps euh, ci mu may rappeler à man aussi ma koy jox les informations qu'il ci lañ ma jox information comme quoi am nañu rax manifestation bi te lu ñu bëgg moom mooy xëy na dañu bëgg a sàcc nit ñi des choses comme ça mais tamit dañu bëgg yàq manifestation bi man aussi bi ma ko yëgee ki ma ko wax dama ne ko bu nekk wax buy jóg bu mu senn parce que am na ci yenn information yoo xam ne doo tëb rek génne ko mhm. il faut danga nga koy ngunum ngunumee mhm. li ma war nag moom mooy pas informer ñi nga xam ne ñoom laa àndal ci euh, euh, euh, pour organiser manifestation bi mhm. mais comme am na ñoo xam ne ñu ngi taxaw j'ai vu le commissaire de la police mi ngi taxaw ay ñoñam ñu ngi taxaw di sécuriser li nga xam ne moom moo di manifestation bi tout de suite j'ai appelé le commissaire pour lui dire que waaw il paraît que am na ñoo xam ne dañu nekk ay infiltrés ñëw nañu pour boobu noonu tam ñun xam leen ne ñun wowuñu kuy xeex woowuñu kuy xuloo bu fi dara dégénéré aussi ñun dañuy dégager suñu suñu responsabilité par la suite laa ko woo moom aussi mu ne ma d'accord xaar ma dem xool bi mu demee xool cinq minutes après ci la ma revenir ne ma effectivement am na ñu fi nekk ñoo xam ne nii dégg naa dañu rax te ni ñu tasee woon maa xadi jéeri faal ak ni ñu ko doon waxee ñi leen gisaat ak man li ma ci gis mënoo woon a xam ne ñii dañoo ñëw nit ñoo xam ne ñi ngi taxaw ay gourdin ñu yor ay jaas ñu lii lii yor ko ci seen ay bi yére nit ñi di leen gis nii. Hmm. ñu rax déjà manifestant yi day xaw a nekk loo xam ne dafa doy waar. Hmm. après ci la ma ne loo leen mënti def nagaaw 18h bi leen euh, euh, euh, préfet bi jox ngeen respecté ko ba mu lii. heureusement que ñun sax egguñu foofu mooy le quart 18 mooy le quart man dama wax ak moom ba pare raccroché rek parce que ñu ngi doon xool waa diaspora yi comme dañu bëggoona wax man ma dem ci ñoom comme dama doon organiser ma dem ci ñoom pour ñu ñëw jël parole bi ma demee ba wax ak ñoom waa diaspora bi kenn ne moom moo ci jël parole ma ne ko wiiril ma taxaw di ko xaar fi ma taxaw di ko xaar pour mu ñëw ma ma jàllale ko yéegal ko ci podium bi ci laa gis xeer yi jóge ne di jolli di ñëw di jolli di ñëw lii moo tas manifestation bi li ci des nag ñu ngi ciy dégg ay wax par ci par ay wax par là ñi nga xam ne ñoom ñooy wax ba tey déggoo benn <coughs> ku organiser woon manifestation wax nel kii la wala kaala mais ñoom ci seen biir am na ci ku jigéen koo xam ne waa taxawu senegal génn na def na ay vidéo ci ay oto yu ñu seen côté <coughs> oh. ay nit ñoo xam ne blessé nañu seen côté ay yooyu noonu ñoom ñoo ko jiiñante est-ce que comprendre nga ñoom ñoo ko jiiñante seen biir gis nañu ay vidéo ay audio lépp mu ngi daw man mii ci sama bopp oto bi ma duggoon ni sama oto borom kër dañ koo toj tojote lépp kon xam nga man man man am waaw dañoo tojote lépp toj parabrise bi xoos oto bi def lépp parce que ci ci fi ñu ko fi dañoo teel a ñëw fi ñu gaare woon moom moo tax donc ñoom ci seen bopp ñoom la ñu déggaat man ci après bi ma demee sama kër laa commencé gise internet bi ñoom ñu koy jiñand seen biir xamuñu nag yàlla rek moo xam mais tamit lu mu ci mënti doon man je préfère man coro samay responsabilité laay wax ñu def ko pootum biir xam nga la moo tax am na loo xam ne xaju fi gis nga am na loo xam ne ci ay ñaaw ñaawteef xaju fi xam nga lu tax xaju fi hmm. dañoo am obstacle buñ jàkkaar lool dañoo am un boo xam ne nii moom la ñu ne euh, moom la ñu war a defanteel ba mu jóge fi wañ loxoom ba mu jóge fi muy Macky Sall ak waa kër muy régime actuel bi euh, nguuram waroon naa euh, sax euh, jeex le 2 avril bi te day jeex gëm naa ko mais suñu demoon élection le 25 février bii mu ñu xañ amaana manifestation du am ba lii di am ba ay ñaawteef di am ba ñuy seet bopp yi di tojog yooyu donc loolu lépp nañu ko jël mu ñu mar moo gën mu ñu naqar moo gën ba jël obstacle parce que lii nii ay futilité la dañuy delluwaat ci ginnaaw di waxaat di waxaat di waxaat di waxaat alors que euh, ça ne mène à rien du ñu yóbbu ci dara li nuy tax a dem moom mooy jàkkaarloo ak sunu ennemi comme ni ñu koy waxee muy euh, euh, waa régime bi jéem leen a jële fii wañ loxo Macky Sall wan waa conseil constitutionnel ne leen il est ngeen jël décision euh, euh, euh, décision bi nga xam ne moom moo favorable ak askan wi mooy ñu dem ci ay élections yu transparente mais aussi loi d'amnistie ak ay ñoom seen ak ñu tegagum ko ne en attendant ba li jënd suñu Sénégal gi ba pare. Mhm. te bokk na ci jël ay xob sànni ci urne yi. Mhm. fexe li. ñu bari bari ci sénégalais yi fi mu nekk nii ñu ñu daanaka parcourir Sénégal xam li xew ci Sénégal gëm ne ñi ëpp ci Sénégal boo doon xool li ñu bëgg moom mooy dem ci ay urne sànni ay xob daaneel régime régime bi fi nekk mhm. waaw Euh, mu euh, mu mel ne su ma déggee li nga wax mooy ne euh, buñ nangu lii di doon diversion. diversion oui. voilà mais doon na loo xamante ne bii lu ngeen di topp la ndax te maa ngi koy dégg ni ki sànq ne peut-être di ngeen am fas yi ngeen yéene leeral lu ni mel parce que dara bu amee dañ naan kan moo am intérêt à lii am. donc peut-être xëy na mën nañu cibler fii far gis leneen donc ñàkkul ne di ngeen wéyandi ngir xam. ana fan la loolee jóge man personnellement Coro. Hmm. man moom bu doon may man man parce que euh, gis nañu lu xew am na ñu génn di ko jiñ seen bopp yàlla rek moom moo xam lan moo tax ñu génn di ko jiñ seen bopp ndaxte ñu bokk ci ñoom ñoom ñoo génn wax ci seen tur ne ñoom bërëb bii la ñu bokk parti bii lañu ñu bokk wala mouvement bii la ñu bokk. Mm-hmm. te ñoom xam nañu ne ñoom ñoo fay seen booy comme xam nga du ñun ñoo ñoo ñoo accusé dégguñu tam ci ñi nga xam ne ñoom ñoo force de l'ordre ñu ne ñu ñii la. pour l'instant nii man li ma jàpp man Thior personnellement mooy nañu bàyyi mu sedd ñu focus. Hmm. ci sunu intérêt. ndax lii diversion la te ñii kii ñu jàkkaar lool tax ñu defoon manifestation woo askanu Sénégal ba ñëpp ñëw bu ñu nekkee di retourné waat di seetaat ak wëraat le 2 avril c'est pour bientôt te suñ ci suñ ci suñu euh, focusul ci le 22 avril ci le 2 avril boobu le 2 avril bi euh, euh, moom président Macky Sall war a def pastation de service le 3 war a nekk prestation de serment man loolu laa ne nañu focus ci lool parce que ça nous reste des jours pas des mois wala des années donc bu ñu retourner waatee bëgg arrière di wax leneen loo xam ne nii ay futilité la xëy na ñu ko def sax loolu la ñu bëgg ñu retourner waat euh, nga ñu sànni la xeer nga for xeer ba di ko sànni laataa ngay for xeer bay sànni kic sa ginnaaw kic sa kanam dina rërëcc te dañoo am ku nekk suñu kanam muy nguurug Sénégal président Macky sàll ak date wii mu war a jàpp conseil constitutionnel ñu koy ñaan mu bañ a deltu gannaaw mu dëggal li mu wax mu dëggal li mu bind ci ay këyit mu na dire ngir yàlla ak rasuli ngir sénégalais am jàmm gis nga bu ñu ko defee. manifestation dootul am. xiiroog ngaayoo dootul am bañante dootul am ndax ñun ñii nekk waa FDD du ñu ay politiciens. Mm-hmm. ay hommes et de femmes de médias lañu. ak ay sos ñoo xam ne société civile lañ bokk. ak mm-hmm. ay sénégalais yoo xam ne ci société lañ bokk jël seen. Euh, seen ay courage. Euh, mhm. euh, daal di bokk ci boobu FDD te ñu taxaw kuréel goo xam ne ni gu bees dàq la dañuy dox sénégalais yónni ñu yàkkamti ñu ñu ngi dox jëm ci li nga xam ne moom la ñu war a jël te ñu ko jël teg ko ci loxo sénégalais incha allah mhm. moo tax ma mhm. xalaat ne. leneen xaju fi vraiment. ci date boobu nga wax noonu tudd ko gis nañ ñi nga xam ne ñi ñoo nekkoon ca dialogue ba ñoom la ñu proposé mooy le 2 juin. ndax yéen seen kuréel yeeg yéen yéen ñëpp yéen ban date ngeen proposé ngeen bëgg ndax finalement euh, buñ bàyyee nii rek lañ bëgg duñ ko ant duñ ko duñ ko def. xam nga ban date la ñuy proposé. Hmm. mooy date bi nga xam ne. conseil constitutionnel day jóge ci sunu droit day jóge ci yoon conseil constitutionnel moom la ñu ne euh, booy wax plafond moom moo egg ci plafond boo doon dem tey ji moom mooy ci sësam ngay dem pour wax ci wàllu élection ci yoon. Hmm. donc kooku kenn gënu ko yayoo wax ci wàllu élection yi. Mhm. soo ma su ma jëloon tax tey jii nee par exemple le 30 euh, euh, euh, le 30 mars bi mhm. tamit damay nax sama bopp. xam nga lan moo tax ma la koy wax. Mhm. parce que la jóge ca dialogue ba mënoo koo bañ yow nga ne ñii wax ay le juin. seen seen kàddu warta jóge wala warta dugg ci ay sunu élection. Macky et ses ñoom ñoo tase woon di def seen genre tour de famille waxtaan nañu ba dalal nañu seeni xel ñoom ba wax li ñuy wax loolu bi ñu génnee ñun ba xool xam nañu ne arrangé wul ñenn ci peuple bi te ñi mu arrangé wul ñoo ëpp donc li ñuy def moom mooy déglu ñi war a wax droit ñi nga xam ne ñoom ñooy conseil constitutionnel nañu weñ loxo Macky sàll ndax mën nañu ko mu jàpp date balaa yàgg sinon conseil constitutionnel ci boppam def li nga xam ne ni tey ji moom la yoon digle ñun ñu mën cee ànd ak moom mooy avant le 2 avril élection am ba tax le 2 avril passation de service service man service mën am le 3 avril ñu mën a dem ci li nga xam ne moom mooy euh, euh, euh, prestation de serment donc amuñu benn date boo xam ne nii moom la ñuy jàpp ne par force ci la ñuy dem élection ndax ñun yayoowuñu pour jàpp ko ñoom li ñu yayoo ñàkk a pour jàpp seen le 2 juin bi parce que man le 2 juin sax dama naan xëy na seen datu rêve la dañ leen bàyyi ba tey dañuy rêve ay maire ak paa yu toog di waxtaan di uh, uh, lii xamoo lañ ca boole toog biir lii rek toog seen saal bu neex waxtaan ñoo xam ne ni duñu institution kenn xamul fan la ñu bokk exactement kenn uh, mënul a wax ne dañoo jiitu dañoo wax ci waxi waxi mm-hmm. loi wala décret wala lenn kenn neewu la dañoo tënku ci li nga xam ne moom mooy ay institution pour wax mm-hmm. lu dul ay Serigne Dakar sunu baay Ahmed Khalifa Niass mm-hmm. yeneen ak yeneen yeneen ci ay doomu aadama yoo xam ne gis nañu leen fa